seet ndax penc mi ñun ñëpp a ko bokk te ku ci nekk ci ñun acteur public journaliste animateur reporter ku nekk ci ñun ittewoo nga loo xam ne luy defar penc mi la te ñëpp a jëriñu kon bu ñu gisee loo xam ne safaan bi la itam ah, jaadu na ku ci nekk jóg mm-hmm. def itte pour mën a gindi sa moroom kooku tamit mën a gindi keneen balaa maa dugg ci solos euh, li tax ñu daje fi dama bëgg a fàttali ni que duñu nangu kenn bëgg a profiter ci lii lëmbee réew mi foofu sa Kaolack pour bëgg a dugal affaire émotion ba gis naa sax koo xam ne presque dafa xaw a mel ni kuy diw confiture que peinture euh, ay chocolat góor jigéen ñi kenn mënul fexe ba ne waaw kii ñu taal waruñu koon taal ba pare nag bëgg rafetal li gën a yées ci bàkkaar yi mu di ngóor jigéen nga xam ne yàlla daf kër rëbb rëbb bu leer nañ loolu moom amul kenn ku ci mën a def loolu euh, mon ami Damboy di wax layam layam suñu borom moom du layam layam rawatina que dañu nekk ci dëkk boo xam ne yàlla daf ñu wërsëgalee deux grandes religions révélées ñu bokk benn position ci xaramal góor jigéen mu di la religion musulmane et la religion chrétienne d'ailleurs ce n'est pas hasard boo demee ci injiil bi yonent yàlla Insa di bible bi te yàlla jaarale ko ci Jésus Christ nga dem tam ci alquranul karim am na taarix boo xam ne ñoom ñoo bokk ni ñu ko nettalee ngir di wane meru yàlla ci bàkkaar bii nga xam ne wala bokk bokk ci yi gën a yées ndéem gënu see yées di wàllum ngóor jigéen hmm. taarix bi nga xam ne ñoom ñoo ko bokk nag moom la suñu mbokk catholique yi tuddee la malédiction de Sodome et de Gomorrhe boo ñëwee ci alxuraan ñu tuddee ko euh, euh, euh, alagu askanu loot mu di benn béréb bu nekk fële ca Moyen-Orient boo xam ne bii si jamono yonent yàlla Ibrahima yonent yàlla Ibrahima yonent la bu bu bu feeñoon 2000 ans avant Jésus-Christ avant yonent yàlla Insa daal di ko yónni ci askanu Lóot ndax suñu boroom ci mbaaxam ak yërmandeem du jóg rek yëkkati yàq loolu dafay def yi avertissement mu ne ko demal nga wax ak ñoom ndax ñaawteef yi jéggi na dayoo rawatina askan la woo xam ne ci wàllu débauche wàllu perversion dem nañ ba dañu banaliser sëy góor ak góor dem nañ ba bu fa nekk kilifa chef de canton délégué de quartier te amuloo far bu góor daanaka say moroom yi dañ lay kokkali ne daal yow da nga tardé da nga démodé demoon nañ ci ba da gis un père de famille bu am doom bu góor bu dem ba muskàllaf 18 ans 20 ans nga sëy ak moom c'était banal yont yàlla Ibrahima ñëw def li ko suñu borom sant maanaam mu artu c'est une longue histoire waaye ci gàttal dañ ko soofantal suñu boroom ba tey dawal yërmande toogaat ak diir daal di yónnee yonent yàlla lóot yonent yàlla lóot nag way juróom bu góor frère la ci yonent yàlla Ibrahima du ñu jëkkoon yónni avant moom kon yonent yàlla Ibrahima c'est l'oncle paternel de yonent yàlla lóot lóot tam daal di ñëw reconduire le même message ne leen ngóor jigéen gi tar na ci penc mi suñu borom nag du jóg rek indi daan kon ginnaaw sama nijaay sama oncle paternel Ibrahima man mii yoon yàlla loot man na yónni pour artu ndax yéen ngi yàq penc mi yéen a ngi défier yàlla ndax yàlla ñaari entité sexuelle la créé góor ak jigéen y a pas de sexe intermédiaire moom tamit ñu soofantal ko suñu borom ne danaa leen may une dernière chance dal di yónni ñaari malaayika waaye dañu am ñoom ñu daal di ñëw jubal kër Lóot ne ko suñu boroom a ñu yónni daal di ko feeñu xamal ko ne ñoom ay malaaka lañu Lóot daal woote assemblée générale bu mag kilifa yëpp a ñëw chef de canton yeeg chef de district yeeg mu ne leen ñii day ñu ngi jóge ca leer yu kawe message bi sama nijaay waxoon yonent Yàlla Ibrahima te man ma tollanti ko ñoom itam si tànk yooyu lañu ne waaye li loolu di expliquer ci première rangée bi mu am ci ñaari ponkal yoo xam ne kilifa lañu ci askanu Lóot dégluwuñu li yow Lóot di wax ñu ngi fab seen bët yépp nekkoo bàcc ci ñaari malaaka yi dëgg la malaaka yi dontele malaayika lañu waaye dañu taaru rafet ndax leer yu kawe ya nga xam ne fa la ñu jóge rafet mignon ñaari góor yooyu xool leen bay lox des de sexuels jékki mel ni luy jóg riir wuti malaaka yi loot ne leen déet déet déet ñi yàlla leen yónni de s'il le faut ndéem lii lii lii ngeen bëgg ndéem dafa am loo leen namm ci ñoom man am naa ñaari doomu jànq yu mësul dugg ci néegu sëy jaral na ma ma sacrifier ko jox leen leen waaye ñii bu leen leen laal gars yi ne déedéet ñii rek ñu riir jóg wuti foofu la suñu borom mere daa di ne Seydina Ibrahima mu ne ko labay Seydina Lóot mu ne ko labay mu ne génn leen dëkk bi ñii ils sont irrécupérables foofu la yebalee nag euh, Seydina Jibril alayhi salaam mu ñëw firi ay laafam ànd ak soixante-dix mille anges ñu daal di ronu dëkk ba naaw yëkkati ko ba ca kaw dëpp ko dóor ko ci suuf taal ko mu tàkk juróom-ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar fukki bëccëg te li ci doy mooy suñu borom ba mu leen di xalak alak na ku def ak ku defu moo tax mu am benn aaya alxuraan bu ko dëgg suñu borom ne wattaqu fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaasa yéen jaam yi moytu leen sama ay mbugal walla sama ay nattu wala sama ay duma wala sama ay fitna yoo xam ne bu ma koy wàccee ci seen kaw du yem rek ci bopp ña nga xam ne ñoo ko provoqué kon ñun xeex bi ñuy xeex góor jigéen seen légitime du ñu nangu seen mbon tax ñuy wàcce mbugul yàlla ci suñu kaw ba nga xam ne jamono daw na ba ñu egg ci suñu génération yi werante dafa amoon naan est-ce que la malédiction de Sodome et Gomorrhe c'est wala réalité la mu daal di am benn équipe de télévision franco-allemande bu ñuy wax Arte te lii ma leen di nettali yàggul 2014 bi la ku ci bëgg ci yéen nga jox ma sa euh, numéro WhatsApp bu ñu paree ma yónnee la ko ñoom ñu ne hasard amul ni ko bible bi nettale muy la malédiction de Sodome et Gomorrhe ak ni ko alxuraan nettale maanaam bi yàlla di toroxal askanu Lóot ni mu nuree ni mu nuroo dafa yéeme kon nañu dem ba localiser site bi fan la woon ñu daal di ànd ak ay archéologue ànd ak ay volcanologue ànd ak ay anthropologue jël carte géographie bu Moyen-Orient daal di def benn expédition nag ak ay chercheurs ànd ak la télévision franco-allemande bi ma leen di wax lii c'est récent la ku ci bëgg ci yéen ma yónnee na ko dañ doon vérifier ji ndax alak bi yàlla alak askanu loot ndax góor jigéen ndax am na wala am waaye ba ñu eggee ci sit bi lan la ñu seetlu d'abord ba ñu tibbee ci suuf si dafa mel ni doomu taal mu mel ni fii safara jaar na fi constat des dizaines de kilomètres à la ronde gàncax sax troisièmement te ñun ñëpp jàng nañ ko euh, en cours de géographie am na benn bras de mer bu romb foofu naka lañ ko tuddee c'est pas un hasard la mer morte ndax dara du fa dung te ba fa yàlla di wàcc mbugal bi nga xam ne alxuraan nettali na ko biiru bi na ko kañ la woon 2000 ans avant Jésus-Christ te ñun ñii nga xam ne ñoo bokk génération fan la ñu toll ci jamono nous sommes en 2023 kon nous sommes en 2023 ans après Jésus-Christ boo ci boolee 2000 ans yële ça vingt 4023 ans bi yàlla mbugalee askanu lool te ba tey mero yàlla mu nga fa gàncax mënu fa sax dara mënu fa sax mero yàlla xajul ci doomu aadama ba tax na kon texte sacré yi mandargal nos deux grandes religions révélées d'abord ci alxuraan suñu boroom yeesalaat na ay avertissement pour avertir les générations futures wax na ko ci suratul Uhud yeesalaat na ko ci suratul Tawba suratul Ankabut suratul Anfal surtout anbiya yi fukki fatwa ak juróom-benn suñu boroom di ci fàttali na mu alage woon askanu Lóot ndax góor jigéen te am na ci ay saar yoo xam ne toujours day naan yéen jaam yi ndem am ngeen jom gis ngeen fi ma jaar ak askanu Lóot alors nga dem ci suñu mbokku catholique yi ñoom tamit kenn demul ñu des am na seen benn téere bu ñuy wax Lévitique chapitre 22. Euh, chapitre 18 verset 22 lan la ko suñu borom wax coucher avec un homme comme on couche avec une femme et une abomination kon loolu foog ñu leeral ko werante ba ñu am fa yàlla tegoon tànkam démb ci xaramal góor jigéen tey la gën a tar bu ko defee nag lii xew du gulet ñaata yoon lay góor jigéen dee fii bàmmeel bu mu dem rek ñu rejeté ko ñaata yoon ñaata la ñu toxal góor jigéen bi euh, euh, nuitamment yóbbu ko ci beneen bàmmeel ñu rejeté ko du fi guléet waaye nag suñu borom àdduna ci wàllu góor jigéen bu dee dafa ne bu euh, pendant muy dund yéen askan wi boo leen amee loo leen di jàmmarloo ak moom pendant muy dund ngeen ko war a def ngeen di ko boy ko boycotté di bu leen nuyoo sax bu leen neexee ngeen bañ ko fay bu leen neexee sax bu leen ko jox loxo dégg nga ngeen di xeex ak moom ngir mbonam mu bañ ko wasaare yàq askan bi pendant muy dund la suñu borom wax waaye nee na bu xësee ba dee santul kenn nga di ko sulli rawatina nga di ko taal te publié naa ci suba ginnaaw bi ma ci defee ay recherche ci sama page Facebook sang bu tedd Seydina Mohamed ñëw dëggal loolu suñu borom wax muy benn hadis bu ñu jëlee ci imaam Abu Dawud sanga bu tedd bi nee na benn mbindeef amul droit di taal moroomu jullitam moroomu mbindeefam lu dul ka nga xam ne moo am sañ-sañ bi mooy ki moom safara moom àjjana mooy safara mooy suñu borom subhanahu wa kon nag lii xewle woon na la ñaseen njuumte la suñu borom dolli dellu na ni ci chariatul muhammadiya góor jigéen bu génnee àdduna xëy na kay li ngeen mën a def waxul ngeen sulli waxul ngeen taal waaye li ngeen mën a def <clears throat> pour askan wi yëpp a xam ne àndu leen ak moom ca na mu daan dunde mooy bu ko benn benn bu am daraja ci umma islamique bi jiite la prière mortuaire bu ko imam ratib bi jiite bu ko bi topp ci imam bi jiite bu ko ulamaaw tafsir yi jiite kon képp ku am ndombal tànk ci umma yi charia nee na bul ko jiite góor jigéen bu dee waaye waxul nekk bu leen ko julle de nee na na ngeen seet ci umma bi ka ca gën a eh, woyof xaftaan ku mel ni Mame Makhtar gi <laughs> alors kooku mën na ko jiite parce que suñu borom buggul ñoom bu ñu génnee àdduna ñu ñu di leen màggal ak di wan ne jox nañ leen importance dañuy wàññi importance bi ñu leen jox à sa à sa plus petite expression loolu suñu borom wax na ko waaye waxul ne na ngeen sulli waxul ne na ngeen taal dafa ne euh, doomu aadama bu xës ba génn àdduna pare na ak yéen jébbal leen ma ko ndax li ci des man maa koy gérer waaye nag tubaab dafa ne il faut guérir le mal par la racine daal di wëlbatiku ne il n'y pas de fumée sans feu lii yëpp bu amee parce que du gox boobu rek la ñu mës a rejeté góor jigéen ne kenn du ko fi suul am na ci gox yu bari c'est pas la peine ma di leen lim yéen a ngi sur actualité waaye bu Kaolack bi di tax mu tar ba ñu sulliku yamatuñu ci ñu sul teg ay pën déet waaye ñu sotti essence taal ko li tax mu tar waa Kaolack dafa am mer bu ñu yàgg denc te ba tey réseau ñun ñëpp dund nañ ci atum ndax yàlla dafa dogal suñu mbokku catholique yi ñoom dañu am benn calendrier bu ñuy wax calendrier euh, grégorien ndax fête religieuse catholique yëpp même date bi ba mu amoon daawaataati jéeg daaw jéeg ak ren du changé mardi gras date ba mu tombe woon daaw moom lay tombé ren ascension bu daaw même date que ren euh, fête de morts boobu ñuy wax euh, Toussaint premier novembre lay doon toujours bu ñuy màggal juddu yent yàlla Isa Jésus-Christ c'est toujours le 25 décembre waaye ñun nag c'est différent ñun dañu am un calendrier lunaire qui tourne c'est le calendrier hégirien parce que tabaski bu daaw bokkul ak date bu ren kazalika korité euh, yawmal ashura et cetera alors calendrier lunaire bu julli yi di tourner ci atum 2015 di tourner di tourner ba juddu yonent bi tombé net le 25 décembre bi nga xam ne moom la catholique yi di def Noël di màggal juddu yéen jàll instant dafa tombe net ñëpp daal ne ah lii rafet man sama ay xaritu catholique yu bari woo nañu daal ne ah day ñoo bokkandoo gàmm ndax ñun ñu ngi màggal le cinq décembre di célébrer la naissance de Jésus Christ yéen tamit ce 25 décembre 2015 yéen a ngi célébrer la naissance du prophète Mohammed ñëpp rafet lu mu nekk un motif de fierté pour nos deux communautés musulmanes et chrétiennes. mu nekk un motif de rapprochement entre les deux communautés confessionnelles ñu ne lii de dana nekk jéego bu mag dans le dialogue interreligieux ñëpp a kontaan lobby homosexuel yi nga xam ne ils ne font rien par hasard daal di profiter sur cette date doublement symbolique organiser onze mariages homosexuels ti école Ibrahima Diouf bu Kaolack loolu tooñ la tooñ la ñoo ko tey choisir ñu date par hasard maa ngi profité gërëmaat le commissaire euh, Bokar Ly di gérer dossier boobu avec professionnalisme ndax ni mu yëgee woon information bi deux mois avant que góor jigéen yaa ngi préparé takk fukki sëy ak benn ci école Ibrahima Diouf noonu la ko jam la yëgee waaye professionnalisme moom mënoon na ko yëg ba pare fesal ko waaye dafa ne teg garde information ndax code pénal dafa ne boo jàppee góor jigéen balaa ñu koy mën a traduire en justice boo indiwul ay preuve dégg nga affaire ba day nax say moo tax mu ne tekk code penal ne boo ko jàppul en flagrant délit day nax say moo tax nag jour ba nga xam ne ci la góor jigéen yi war a def seen ñaawteef mu tombeeg guddi gàmm commissaire Bokar li daal di poster ses hommes dans des endroits stratégiques ñii dañu civil ñi nekk en tenue dans la discrétion góor jigéen yi di dugg ci école di dugg ci angaaru euh, lycée Ibrahima Diouf ba fees fa dell ba tëj angaar bi commissaire bi ne tekk rek parce que flagrant délit la bëgg pour werante bañ am mu bàyyi leen ba mu wóor ko ne tàmbali nañ seen ñaawteef rek mu joxe signal takkadeer yi naaw rek dajji buntu bi rek bett góor jigéen ñi daw jaar ci palanteer yi waaye mbaal nañ ci presque une quinzaine kon flagrant délit am na ñu ne preuve commissaire bi ci xarañteefam fexe na ba jël fa ay robe de mariée fexe na ba am ci ay preuve am ay ay ay bague de fiançailles fexe na ba am ay déng ay ay yooyu euh, Ahmed Cissé naan dañ ko war a séddale si jàkk yi ay préservatif fexe na ba am ay lubrifiant ak yeneen yu ñaaw yoo xam ne mënuma koo lim te góor jigéen ñi di ko jariñoo yooyu yëpp la commissaire bokkal yi dajale waaye bu du woon professionnalisme taalibe Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass mer ba fut armé jusqu'aux dents yore seeni i kuuru roof jaasi arme blanche riir wuti commissariat bi commissariat bi ci gaawaayam moo fexe ba ñu paqueté leen yóbbu leen jébbal leen procureur léegi nag ñépp kontaan daal di ne fokk ñu sanctionné lii ndax tooñ weesuwul guddi gu tedd gu day ni diine jàmbur ñaari diine nga ñëw daal di def profanation euh, de la célébration de la naissance du Christ def profanation de la célébration de la naissance du prophète Mohammed kon ñëpp kontaan ci sanction bi waaye fu mu mujjee une semaine rek góor jigéen ñi génn di taxawalo ñii ñu utal leen passeport ñu dem Canada te ñi leen ko utal ñun xam nañu leen ñii ñu utal leen passeport ñu dem Belgique ñu tasaaroo ci ci ci àdduna bi daw génn Sénégal am na ñett ñu ñàkk jom yu toog waaye dañu dañu déguisé wu xaw ma ci lan la ñu ne alors seen naataango yi daal di dem interpeller kilifa procureur mu di le ministre de la justice à l'époque Sidiki Kaba la ne ko waaw monsieur le ministre góor jigéen ñi tooñ tooñ bu flagrant takk say guddi gàmmu guddi célébration de la naissance du Christ ci école bu tedd muy école Ibrahima Diouf nga xam ne cadre yu bari jaar nañ fa flagrant délit am ay preuve waaw lan moo des ñu livré leen procureur ñu dégg ne bàyyi nañu te yow yaay kilifa procureur lu tax ñu bàyyi leen lan la Sidiki Kaba tontu ba léegi ñu ngi koy naqar nee na waaw euh, article 319 code pénal bi ñuy faral di évoquer souvent boo ko xoolee eh bien niñ ko bindee amoon fenn fooy gis baatu homosexuel article bi dafa ne eh bien euh, euh, les les les actes contre nature sont réprimés c'est tout loolu moo indi problème yi am yëpp ci coowu ba jigéen yi di dégg parce que bu ñu nekk l'article 319 réprime les actes contre nature c'est vague. moo tax góor yéen yi ci dal di dem alors su ko defee nag tooñ yi di enchaîné wu ndax toog nañ ba 2019 fii ci caar yi la woon bi yoon góor jigéen yu jigéen ñi ñoo jóg 25 lesbiennes wala lu ko ëpp parce que ñaari njaganjaay lañ fi lañ fa indi dal di wàcc gànnaayu ak yat song benn kër. di toj ardoise yi ak dajji paranteer yi ndeke benn lesbienne moo dëkk foofu boo xam ne dafa leen bàyyi gis benn ilimaan mu tuubal ko mu dellu ci néegu sëyam ak ak jëkkër bu normalam jëkkër ji génn di interposé wu comme que lesbienne yi dañu bari doole ñu song ko dóor ko ba gaañ ko bopp bi di naaj waaye Jamra ngi félicité njàmbarteefu délégué de quartier ba moo woo xale yi ñu ñëw song lesbienne yi police ñëw jàppale leen am na lesbienne yu daw waaye jàpp nañ ci une bonne dizaine jour procès bi ñëpp a demoon tribunal fees del parce que ku nekk da nga doon dañ kumpa ne kii lii mu def naka la ko man a layee effectivement ba ko président tribunal bi ne ko waaye kii ci yéen la bokkoon mu xam ne lesbienne maanaam góor jigéen bu jigéen ngor bu ko diine bu ko mu ne bàyyi naa ut ilimaan bu koy yóbbu ci eh, jëkkëram góor bu normal mu delluwaat ci néegu séem normal waaw ngeen jóg di def expédition punitive te jëkkat yi xaw ne say ñàkk ba bakkanam ndax fitnaal ngeen ko lii ngeen def foo ko teg chef de gang bi lan la ko tontu chef de gang lesbienne bi dafa xool président tribunal bi ak bëti wow koŋ ne ko waaw sama cër la sama far la kon su ma bàyyee dellu si jëkkëram man damay considérer nekk daf ma trahir xoolal boobu sañ-sañ lii yëpp mooy loolu si Sidiki baa wax rek ne article 319 bi waxul homosexuel waxul lesbienne acte contre nature la góor jigéen ñi dañu xam loolu xam ne bu ñu tooñee dinañ si génne te dara du lañ ci fekk mën nañoo lim yëpp waaye bi ma ciy mujjee liim moo gën a récent dans la nuit du 23 du vingt 22 au 23 novembre 2020 le le gardien de la grande mosquée de Dakar ce haut lieu de nga xam ne suñu boroom fonk na jàkk fonk juma ba tàgg ko ci suratul jinni masajida lillahi jàkk yi sama néeg la ndax fonk ñaari góor jigéen bàyyi àll bi yëpp bàyyi hôtel yeeg àll beeg lépp ñëw ci biir jàkk ju mag jooju di fa njaaloo kooku tooñ la waxuma la nag seen naataango bu xarañ boobu ñuy wax Cheikh Oumar Ndaw gëstu bi mu defoon quand il était euh, rédacteur en chef du journal L'As parce que moom léegi moo yore le journal bi ñuy wax Les Échos gëstu bi mu defoon ci ñaari góor jigéen yi ñu bettoon ci cimetière Soumbédioune ñuy tourner film pornographique ci benn kaw bàmmeelu nitu yàlla teggin moo tax du ma tudda turam foofu tamit fu mu mujjee ñaari fan ñett ñu bàyyi góor jigéen ñi dem seen yoon. waxuma la biennale des arts bu 2014 nga xam ne biennale des arts dafa nekk dans le prolongement du festival mondial des arts nègres bi ci Senghor sancoon en 1966 ñu ñëw ba édition 2014 bi yàlla na ko yàlla yore Mouhamadou Bamba Ndiaye daal di ma signalé ne am na ñaari site exposition yoo xam ne daal wax nañ ko ne am na lu ñu fay exposé daal tey na xel Parce que il y avait des exposants africains venant de la sous-région. ñu daal taal suñu oto dem de de ba ñu demee ci premier site d'exposition bi ñuy signalé fii ci rue de ñu fekk ngandim pancarte à l'entrée benn poster benn lesbienne takk ci ndigg li benn sexe tooy xam ngeen ko c'est le sexe masculin en en en en matière de latex et qui di simuler le sexe masculin di séq ak beneen lesbienne ci mbedd mi dañu teg pancarte bi avec une grande affiche une grande affiche ma première expérience en tant que lesbienne entrée gratuite ku ñëw dugg alors que Biennale des Arts li ko tax a jóg mooy ñuy fësal suñu caada. jigéen ñi di wane euh, ndoket yi ak euh, nit ñi xarañee ci wàllu ciw euh, suñu mbokk la koy wane ñu mën a jàpp boole benn yàtt ko def ci ay forme nit wala forme malade et cetera au début c'était ça waaye lobby homosexuel dañu détourner objectif utiliser ko comme daal di dem ca beneen site position bi waaye yëpp jël nañ ay photo pour bu ñu demee wax ak ministre la culture mu bañ a yi deuxième site bi nekk ci euh, boulevard euh, euh, kii mu tuddati bi nekk ci ginnaaw siège yu Jamra rue 10 Sicap rue 10 ci weti poste de santé Gaspard Camara foofu tamit ñu fekk nga ni pancarte poster géant grandeur nature ñaar bi bële la ay lesbienne la bii ñaari góor jigéen ñu nekk ci position boo xam ne maari day taal yi foog poster bi jàkkaarloo mbedd mi ñu daal di def ngan di slogan pour une meilleure visibilité gay au Sénégal boo duggee ci biir la ngay fay gis teggin ma lu ma di ko répété fii fii à Dakar en plein festival biennale des arts immédiatement nag ñu ne ah lii foog ñu def alerte bu mag ndax askan yëpp yëg ñu daal di wër ci seen naataango yi fu ñu mënee am plateau rajo wala télé yàlla dogal seen naataango bi ñoo Aminta Mbaye que je salue au passage moo nekk fii ci làmp Fall TV muy defal ñu benn plateau en direct oustaz Adou Mboub ñëwoon na rahmatullah ali Mouhamadou Bamba Ndiaye ñëwoon na le photographe du euh, de Walf ñëw ak man waaye invité waale nañu le directeur de l'exposition de la biennale. Le debat a été houleux ñu teg ko par choc ne ko yow mi fi toogal ministre la culture ñaari site d'exposition yi nga xam ne nag werante amu ci boo fa demee léegi nga gis ñaawteef yi fa góor jigéen di exposé di mepp xale yi di leen dugal ci ay musiba xanaa yëgu leen ko lan la ñuy tontu waaw xam ngeen exposition biennale des arts dafa am deux volets dafa am un volet in mooy ñi nga xam ne bon la ñuy exposé wan nañ ñu ko xam nañ ko euh, que ce soit des exposants locaux wala yu jóge bitim réew mu daal di am tamit un volet off mooy exposant ba euh, la mu nar exposé kumpa lay doon ba ci jour exposition bi ci la ñuy xam la mu indiwaale ci ay bagaasam lan la ma ne ko yéen vous mettez le Sénégal en danger parce que exposant yooyu nga xam ne ay Camerounais ngi ci ay ay haïtiens ay góor jigéenu béninois bu fekkoon dañu indi des armes nag comme que yéen doo leen xool seen euh, bagage yi ñuy exposé bu ñu indi woon cocaïne ak drogue nag di ko fi jaay bu mettez le pays en danger débat bu tàng jër mais comme que direct la en direct une haute autorité di ministre de la culture daal di woote daal di adressé wu ci kooku fa toogaloon ministre de la culture nee ko adresse précise yi Jamra joxe ci site d'exposition yoo xam ne la ñu fay exposé ça n'a rien à voir avec la biennale dama bëgg nga jóg dem nga tëj ko waaye ne ko waaw c'est vrai monsieur mais comme que tey la samedi date ba ma ko fàtte mukk c'était le samedi 31 mai 2014 comme que tey la samedi xanaa da ngay bàyyi ba bu lëndee rek bu ma demee incha allah waa ji ne ko déedéet demal tëj ko parce que boobu ñun on leur avait dit boo leen ko tëjul tey tey dinañ fa ànd ak suñu kuréel yi ñuy ànd di xeex yu bon di le comité de défense des valeurs morales bu ñoom sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall dinañ fa ànd ak waa ONG Daaral Quran wal Ihsan bu ñoom image imam El Hadj Aliou Dia dinañ fa ànd ak Duha minal kitaabi wa sunnati bu imam ratib bu wakaam di euh, Mouhamadou Lamine Diagne dinañ mat au moins 500 personnes dinañ ñëw toog ci buntu biennale bi kenn du fi dugg parce que am naay xale yu am 10 ans 13 ans di dugg parce que l'entrée était nga gis xale yi di ko def kap kaf génn école na ne xoolal ko ñaari góor jigéen yi jigéen ñi xoolal ko jigéen ki li muy def keneen ki loolu c'est inacceptable alors mu jëgi nag waa ji jóg dem defi li ko kilifaam wax ñu di ci sant yàlla ndax le même jour ci la ñu tëj tous les sites qui ont été pervertis par le lobby LGBT waaw ma jeexal après ma jox leen ngeen ngeen poser question alors kon nag bu mu fi nekkee di cité yëpp mën nañ fi fanaan tooñ yi du jeex moo tax nag ñun ñu neewoon du vivant de Abdou Latif ginnaaw yàlla defal nañu ndam ci drogue bi lëmbee woon réew mi te narcotrafiquants yi bu ñu leen jàppee ku ci am un bon avocat euh, tu t'en sors avec 6 mois 3 mois génn di kokkali nit ñi fekk kan na suloo nga xale yi tas ay sëy yokk insécurité bi ndax drop day taxali nit kay sagoom te ku àndula sa sago doo xam loo moom ak loo moomul ku àndula sa sago doo mën a jaamu yàlla alors ñu dem gisi le président Abdoulaye Wade mais ko Jamra dafa bëggoon di au auprès de l'État ngeen criminaliser le trafic de drogue Abdoulaye daal di ñu xaw a tooñ daal di ne ah loolu day assemblée nationale moo ko mën a régler latine ko ñun amuñu député assemblée Ablaye daal di ñu tooñ ne ñu ah xanaa ngeen góorgóorlu wàcc ci langue gi pour ceux qui m'ont toujours pose la question voilà la raison pour la laquelle Jamra comme que juridiquement ñun amuñu droit wàcc ci langue gi parce que ONG lañu dañu créer sur les flancs de Jamra benn branche politique bu ñuy wax RDS Rassemblement démocratique sénégalais ci fas woowa ci waxin ci la Latif yéeg daal di def alliance avec la coalition Soppi bu Ablaye Wade ñu battre campagne xeex am député ne carax dugg assemblée daal di criminaliser yamba criminaliser euh, cannabis bi jógee Mali criminaliser Némi lopito bi jóge nigeria criminaliser Brown bi jóge Ghana criminaliser cocaïne bi bi ñu criminaliser yamba nag am na benn activiste bu réew saagakatu xalifa généraux yi mu metti ko lool bés bu ne mu saagañu <laughs> waaw ma ne ko yow ñu criminaliser yamba nga du ñu saaga kon yow euh, ku wax feeñ alors yooyu bañ ko defee tax na léegi trafiquant de drogue y a plus de six mois ki trois mois minimum dix ans la assorti d'une amende ki fait le triple de la valeur de la drogue saisie pañiraam bu ñu la jàppee ak un kilo un kilo de d'héroïne parce que héroïne gramme bi quatre mille francs la kon kilo bi quatre-vingt la mm-hmm. bu ñu la si jàppee ak benn kilo dañuy jël njëgu kilo bi ñu multiplier ko par 3 80 millions par 3 ça fait 240 millions ñun Jamra ñoo ñoo ñoo def loolu kon dof boobu may wax te nekk ci diaspora bi naan non non c'est c'est un projet de loi projet de loi mooy lu jógee ci exécutif bi kii jógewul ci exécutif c'est pas l'État c'est une proposition individuelle de loi venant d'un député qui s'appelle Abdou Latif Gueye président exécutif de Jamra c'est la loi 2008-11 de 2000 euh, 2007 31 du 31 novembre 2007 qui criminalise désormais le trafic de drogue moo tax délit député euh, naataango député sargalee ko Abdou Latif doo dégg mu ñu naan la loi 2007 31 dañ naan la loi Latif gi bi ñu amee ndam ci loolu nag loolu jox ñu fit ñu ne deuxième étape criminalisation de l'homosexualité ndax tooñ bi bari na te du mujj fen mm-hmm. waaye année ba ca topp parce que ndam lii ma leen di wax sur la drogue c'était en 2007 année ba ca topp yéen ñëpp a ngi fi woon parce que 2000 2008 euh, euh, yàggul Abdoulatif Gueye fondateur Jamra di dem benn gàmmu rek fii ci tàmba gis ngeen accident ba mu fa accidenté dajeewul ak oto 4 x bu bés pul boo xam ne rodage am sax jeexul mbëkkantewul ak garab dara ñu xëy rek ñu ne ñu dee na dee bu louche te yam Jamra yàgg na di demander l'ouverture d'une enquête ba léegi état du Sénégal nangu wala enquête ci affaire boobu parce que ba mu jógee ci criminalisation drogue jéego ba ca toppoon mooy criminalisation ngóor jigéen alors ba ñu demee nag ba 2016 te amatuñu député Jamra daal di waat criminalisation drogue bi euh, góor jigéen mais amatuñu député ñu daal di xool ci député ya nekk assemblée mu am ci kenn ku ñu doy koo xam ne appartenance politique am ça ne nous intéresse pas waaye suñu mbokku taalibe la dégg nga ñu bokk suñu euh, euh, suñu xadaratul euh, ahmadia mu di le président du du du conseil départemental de de de Louga Amadou Mbéri Silla moom la ñu joxoon proposition de loi bi mu ne danaa ko porter mu porter ko. te porté wu ko théoriquement yem ci fexe na ba def un travail de couloir ba am quatre-vingts députés signataires que mu proposition de loi bu Jamra jàllee sur la criminalisation de l'homosexualité quatre-vingts députés ont dit à Amadou Mbéry Sylla ñun dinañ ko voté yemul ci loolu président Macky Sall recevoir ko mu jël benn exemplaire ci proposition de loi Jamra en partenariat avec le député Amadou Mbéry la pour criminaliser ngóor jigéen mu jël ci benn jox ko jël beneen jox ko le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niass waaye Amadou Mbéri Sylla la mu daj ginnaaw bi mu defee cet acte de courage la mburu mësu koo daj ci fuur comme que nettali ci làmmiñu borom la daxee damay bàyyi boo leen amee occasion ngeen laaj ko ko. kon nag boo leen gisee et et c'est là où je en terminer boo leen gisee ñu sonn ci pour que ñu criminaliser ko. c'est pour éviter mer bi nit ñi di mer ak ndax góor jigéen tooñ yi ñuy tooñ te dara du lañ ci fekk dañuy ragal mer boobu xiirtal leen ñuy fajal seen boppa te loolu wóorul et nous avons souvent cité trois pays de la sous-région jarul may wax seen tour ñëpp xam nañ ko yéen a ngi sur actualité jarul may wax seen tur pour bañ a tooñ foofu bu ñu jàppee góor jigéen amul xaar ba nga dee ñu suul la ñu sulli la sotti essence taal déedéet pendant que tu es vivant ci lañ lay neen niip jàpp yeew def la loolu ñuy wax le supplice du collier foog ay pneu yu màgget di la ko solal di la ko solal pneu yi di yéeg ba egg ba fii ñu sotti ci essence taal ko une mort atroce loolu bëgguñu mu am fii alors moo tax nag maa ngi profité ci seen euh, ñëw bi ngeen ñëw lancé waat appel au pouvoir public lii xew euh, Kaolack bu ñu ko jàppee pëtëm pëtëmee rek tourner la page nañ si jële jàngat yi ñu si war a jële buñ ko saafarawul ëllëg dana feeñaat feneen ëllëg mu feeñaat feneen ba ba mujj gi sax xale yi attan nañu dootuñu xaar sax góor jigéen bu dee dañuy dem songa leen pendant qu'ils sont vivants ñaanuñu ko yàlla ndax yoon dafa tere ku fajal sa bopp diine tamit tere na ku fajal sa bopp dans un état de droit nul n'a le droit de se faire justice soi-même waaye foo gis en Afrique partout ailleurs dans le monde aw askan jóg di def justice populaire jóg di fajal seen bopp donte le gënul alors foo ko gis rek tànk xam lu moo ko waral ak jàpp problème bàyyi ko di ko mëpp mëpp alors je conclus moo tax nag suñu revendication lu simple la jarul créer loi mu bees on demande la réforme de l'article 319 du code pénal naka lañ koy réformer c'est très simple nañu dindi cette expression vague que euh, de condamnation des actes contre nañu ko dindi daal di citer nommément les infractions ne l'article 319 condamne l'homosexualité muy góor jigéen yu góor ñi l'article 319 condamne euh, le lesbianisme mooy góor jigéen yu jigéen ñi l'article 319 condamne la zoophilie parce que janvier bi rek presse bi waxoon na benn góor jigéen bu ñu bett ci banlieue bi muy sëy ak bëy loolu am na fi l'article 319 condamne la nécrophilie mooy góor jigéen yi xaar ba guddi parce que ñoom dañuy bëgg di diversifier seen i vices ñu dem corrompre benn gardien de morgue di sëy ak néew kon yooyu yëpp la wax ne na ko état bi cité clairement comme ça le juge il est à l'aise ku ñu defee déféré au parquet juge bi bu ko gisee day xool article 319 c'est clair moo xam ne kii lii la def mu teg koy daan waaye bu ñu bàyyi tant que ñu ngi bàyyi cette expression vague que l'article 319 condamne les actes contre nature li xewoon ca gàmmu Tiwaawan gàmmu euh, Kaolack mooy xewaat mooy dañ leen jàpp bàyyi leen ñu wax ministre de la culture euh, de la justice Sidi Kaba lu tax nga bàyyi leen mu ne article 319 tuddul benn yoon baatu homosexuel dafa ne acte contre nature porox ndol la boobu nag loo góor jigéen yi di jaar di tooñ jaar fa rëcc te dara du lañ ci fokk et enfin bu ñu demee na ba pexe amatul et c'est une proposition rek parce que jamono tuuti na torop te kilifa diine yi nekk fi état bi nekk fi et ça ne peut se régler quand dans le cadre d'un partenariat entre xali généraux yi ak état donc bu ñu demee ba pexe amatul Jamra ngi proposé ñu def comme diwaanu Zurich mu ngi ci réewum Suisse la communauté LGBT dafa am armeelu lu boppam boo fa jógee nga dem Copenhague Copenhague mooy capitalu Danemark góor jigéen ñi dañu am seen armeelu bopp coow amu fa ay kenn du ko suul fekk ñu di leen suul foofu kon Sénégal bu ñu demee ba juboo mënul am loolu Jamra tuuti na torop pour yëkkati ci kaddu parce que xalifa généraux yaa ngi fi. ñoom mën nañu en partenariat avec l'État utal góor jigéen yi ay seen armeelu bopp comme ça kenn dootu fi ne góor jigéen di deena na armeel bële parce que coowu Kaolack bi waa ji waa ji dàq dàq nañ ko ci ñaari bàmmeel waaw mais je précise bu ma kenn wax loolu ma waxul nee naa Jamra tuuti na trop pour proposer góor jigéen yi ñu beral leen seen armeel wax naa loolu kon mu leer waaye dama ne bu pexe amatul y a deux pays qui l'ont réglé de cette manière muy la ville de Zurich di nekk Suisse góor jigéen ñi dañu am seen armeel euh, Copenhague di capitalu Danemark góor jigéen ñi dañu am seen armeel idée bu ma sànni rek la waaye jamono tuuti na lool ndax loolu kaddu gu day ni kaddu xalifa généraux en partenariat avec l' état ñoo koy mën a régler mais tant que solution amul góor jigéen bu fi deewati di nga gis ku ñu taxaw ne kenn du ko suul si ñu bàmmeel voilà kon nag loolu laa leen doon defar comme euh, introduction mm-hmm. bu ko defee nag léegi maa ngi seen disposition pour ñu mën a seq laaj ak tontu mais lan moo tax boobu ba tey solution euh, euh, coow bu amee ku nekk toog sa ruq rek ne sama yoon newu ci mooy tontu li la muy jur mooy le problème s'éternise parce que daawaati jéeg am na góor jigéen bu ñu fi bañ a daawaataati jéeg am na góor jigéen bu ñu rejeté woon armel sangam rejeté ko armel sangam lan la mujjee toog ba 3 heures du matin muy yelleeku dem fii suñu booru kër armelu yof yi fa lañ ko mujjee soo man yëg naa ko waaye yëg yéeyuma sax yàbbi san ça ne sert à rien. alors question hmm. dama bëgg a wax comme ni ngeen a criminaliser euh, drogue lan moo tax euh, seen combat boobu tam mënul yomb ci homosexuel. waaw parce que ñun wa nettali naa la dans les détails en 2016 première tentative de criminalisation. de l'homosexualité naka la euh, suñu député euh, bi ñuy mandaté woon euh, di amadu Mbéry Sylla du suñu député waaye député benn Bokk Yaakaar la waaye moom diine moo ko gën a ñor fuuf ay appartenance wu coalition wala parti alors wax naa leen ne daj na assemblée lu mburu dul daj ci taal ci gàttal <laughs> waaye moom moo leen di mën a wax galgal yi kuubaay yi la mu ci daj alors 2016 ba ñu demee nag ba deux mille vingt et Cheikh Oumar Diagne yàlla na ko yàlla féexal parce que il est toujours à la prison de Sébikotane moo ma woo nee ma kuréelu bi ñuy wax ànd sàmm jikko yi nga xam ne c'est une coalition de partis Jamra sax ci membre fondateur yi la bokk presque cent cinquante partis pas seulement euh, euh pas des partis mais des, des organisations socio-religieuses Euh, mais également des organisations de la société civile parce que ndem si yàlla si Malick Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm le coordinateur de du CIS le collectif euh, des intellectuels du Sénégal mm. membre la ci te jiitewul tarixa jiitewul daayira jiitewul ONG islamique donc nous sommes 150 mm. Cheikh Oumar Diagne nee ma ñoom dañu bëgg a yëkkatiwaat projet de loi bi pour déposer waat ko assemblée Cheikh Oumar nee ma nag au lieu ñu nekk fi di bindaat exposer des motifs yi day jël temps yéen Jamra loolu ngeen joxoon Amadou si la en 2016 bu fekkee c'est disponible ñu mën ko jël comme euh, comme euh, élément de base euh, bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour defaat yu nouvelle euh, proposition de loi ma ne ko amul problème jox ma sa adresse email mu jox ma adresse email ma envoyé ko waaye vous avez tous vu le résultat ànd sàmm jikko yi mandaté na ay jàmbaaru député yu mel ni Cheikh Bamba Dièye bu mel ni Mamadou Diop Decroix Mamadou Lamine Diallo tekki euh, maa ngi jéglu bu fekkee mënuma lim ñëpp déposé nañ ko vous avez vu le résultat on l'a rejeté voilà xam nga ñoom na moo tax man dama wax ni et je et à l'État bu fekkee baatu criminalisation moo leen tiital <laughs> parce que gis naa ay euh, sa naataango Alhaji Ndiogu Diène bu RFM qui est tombé dans le piège sànq bi muy présenté journal wolof 13h daane waaw ki doon wax léegi mooy Babacar Mboub donc ñoom criminalisation la ñu demandé woon waaye état bi tànkam lu leen voilà criminalisation daal maanaam góor jigéen bu ñuy jàpp ñu àtte la àtte ku rey nit déedéet c'est pas ça criminalisation mooy une augmentation des sanctions pénales parce que xam nga tribunal dafa am euh, des des cour euh, ordinaires mu di euh, flagrant délit ak correctionnel voilà foofu mën nañu la tëj de un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans waaye au de delà chambre criminelle nga jëm chambre criminelle moom moo tuddoon cour d'assises tur wee changé rek ñu ne ko chambre criminelle loo tax dañuy wax naan criminalisation moo tax nag maa ngi wax fii ne bu leen terme bi tiitale nañu jàpp expression bi Jamra di leen wax nous demandons une augmentation des sanctions pénales pour les délits d'homosexualité de lesbianisme de zoophilie et de nécrophilie xanaa nag loolu dal na xel waxatuñu criminalisation augmentation de sanctions pénales waaye le résultat est le parce que ce qui est important c'est c'est la sanction voilà kon nag loolu yaa ñàkk déggoo am na entre ñun ak état bi ci formulation voilà mais defe naa ba tey tardé wul parce que lii bu ko état bi réglé wul man ñaanuma ko mooy maire bi nekk ci xolu nit ñi surtout maire bi waa Kaolack amoon depuis 2015 te kenn fajalu leen ko ndax góor jigéen yi ñëw profané la sacralité de cette terre sainte dal di nappaaje guddi gu tedd gu mel ni guddi mawludu nabi def fa lu ñaaw la ñuy def te dara fekku leen ci au contraire dañ leen neexal utal leen ay passeport ñi daw dem Canada ñi daw dem feneen mer moomu moo jur lii am barke démb ñu sulli néew taal ko encore une fois Jamra condamne set acte parce que l'islam sant ko kenn Jamra condamne cet acte du diine du aada waaye lii jur yooyu c'est des actes de désespoir li koy jur mooy ñu yàgg di la tànqam la ñu yàgg di la soofantal da ngay xëy rek de mi fees sa dënn rek buy exploser doo xam ban côté lay jaar. ñuy félicité délégué de quartier bi góor bu baax boobu te defe naa ñu ngi koy wax mm-hmm. eh, def na révélation yu am solo yoo xam ne ñu ngi ñaan état bi mu jële ci ay jàngal ndax waa ji dafa doon importer des prostituées de Gambie et d'autres pays de la sous-région jox leen fa néeg ñoom ñuy liggéey seen yu bon chaque jour prostituées yi cotisé di ko def benn versement de vingt cinq mille francs c' est ce qu'on appelle ce que le code pénal appelle proxénétisme maanaam ngay cagatuloo nit ki mu am ci intérêt nga am ci intérêt délégué de quartier bee ko wax te yàgg na fa wax na leneen nee na ñiy nekk fii naan waaw est-ce que loolu la ak est-ce que du loolu nee na waa ji ci boppam moo revendiquer boppam ne loolu la te moom man gëm naa ko moom góor gi parce que nitu jàkk la te affaire u caaxaan yi jaru ko jaru jaralu ko di wax lu amul voilà comme que il revendique son homosexualité foofu laa critiqué waa euh, euh, Thiaro waa waa dañu nekk ba jaan wi romb ñu topp ci wattat bi di dóor dañuy jouer le rôle du médecin après la mort te charia dafa ne bu leen xaar ba góor jigéen bi dee ngeen di def loo xam ne ngor bu ko dina bu ko pendant que muy dund ngeen di war a jàmmarloo ak moom ils ne l'ont pas fait ba mu dee ñu suul ko feneen ñoo ñu rejeté ko ñu dem beneen bàmmeel ñu rejeté ko ñëw seen euh, gox suul ko fa ngeen sulli ko taal ko du yoon